الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم سلامني عبد الخلق كلهم الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم سلامني عبد ذا الخلق كله الحمد لله ذي الغفران والكرم ñi fi teew ñëpp di ay sëriñ daara ak i daara ak i ndayi daara mën nañu ne sax di jëkke ndayi daara yi ak baayu daara yi ak sëriñ daara yi ñu ngi leen di nuyu ci turu ahlul xidma yëpp ginnaaw bu nu leen woote woo fii woote bii nga xam ne tey li ko waral lépp mooy liggéey bii nu seqoon yéen ñëpp ngeen def ci seen jom ak seen yitte ba yitte ba liggéey bi dem ba toll fii mu toll ñu woo leen ne leen ñëw leen nag ñu gaaral leen liggéey bi nga xam ne moom ngeen doon liggéey am ca yu ñu leen ca woon yoo xam ne dangeen xam ne yéen ñii kat ba ngeen di liggéey lii moo taxoon ngeen di liggéey loolu moo taxoon ñu ne ndey daara ju nekk na ñëw teew si bu dikkee fekke dégg la ñuy wax lenn lu ci nekk mu xam na mu demee yëpp kon loolu moo tax tey jii ñu daje fi ñu ngi jéggalu bu baax ñu jóge fu sori ñëw waaye di jéggalu lu baax itam ci yeex gee tàmbali ndax yi ñu doon néeg yëpp muy jumtukaay yii moo taxoon mu xaw a yeex ndax ku ne xam na ne jamono ji ñu toll lépp looy def te mbooloo di ko séq def ko ci jumtukaay yi day gën a leer donte dana niru yëfi àdduna waaye nag ña ngi ko séqal di ko gis ka munta ñëw di ko gis ka nga xam ne bokku ci woon it di ko gis dana tax ñëpp xam ne ñii kat lii ñuy liggéey lii moo taxoon ñu daje kon nag loolu moo tax ñu dajale leen fii tey fas yéene tàmbali liggéey bi kon xam naa dañuy daal di jox rek sëñ Abdou Lahad mu daal di tënk kàddu yi muy tënk su noppee rek ñu daal di jublu ci leer li ci des ci liggéey bi wa barakaatu kon ñu ngi sof suñuy nuyoo ci nuyoo sëriñ Abdourahmane Lo di leen ziyaar bu baax gannaaw bu ñu ñaanale Cheikh Mouhamadoul taxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñaanal mbooleem njabootu sëriñ tubaa gépp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara bu baax tàmbalee ko ci sëriñ daara yi teew soxna yi nga xam ne ñooy ndey daara yi ak baayu daara yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu soxna Astu Mbakke bindu Cheikh Mahamadul Moustapha moom Cheikh Mahamadul Bachir moom Cheikhul Khadim euh, di leen jëfal rek ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne jamono ju nekk yéen a ngi koy taxaw di liggéeyal yàlla jaarale ko ci njabootam gi mu waxoon ne ahlul quraani hum ahlullahi wa xaasatuhu njabootu yàlla mooy ñooñ alxuraan ñi ñooñ alxuraan nag mooy donga yi ak sëriñ daara yi kon su ngeen jógee taxaw fa séenee liggéeyal yàlla jaara ko ci njabootu yàlla googu day mel ne kon ñëpp amoon nañ leen njukkal bu baax a baax moo tax ñu ngi leen di delloo njukkal ci turu eh, sëriñ bi ci turu taaliba yëpp waaye ci turu jullit yëpp yéen ñi nga xam ne yéenay ndeyu daara yi rafetlu seen liggéey bu baax a baax rawatina nag bis bi yi nga xam ne day bis bu màgg boo xam ne dañ ko woote woon ci kër sëñ Tuubaa ga ci Daarul Manaan euh, alxamis le 11 janvier quate yéen ñëpp ngeen bàyyi seen yitte ànd ak seen i dëkkandoo ak seen xarit ak seen i am na jàmm ngeen ñëw teewee bis ba ci anam gu rafet a rafet loolu ñu ngi leen ciy gërëmaat bu baax comme nañ leen ko waxee woon keroog ca bis ba di ñaan yàlla rek mu nangul ñu mbooleem loo xam ne jëf nañ ko ci si dañu yàgg koo taxawe euh, tey nag dañoo ñëw fii rek ngir gaaral tuuti ca liggéey bi rek ndax li ñu taxoon di woote mooy liggéey bii ngeen nekk ñu yaatal ko ba mboolem àddina yëg ko ba ku ci jàpp jàpp ci loolu rek moo taxoon di woote ngir ngeen am ci ay wéttal fa ngeen nekk kenn ku ne fa nga ne nga am ci ay wéttal yu ko ànd ak yow loole it am nañ yaakaar ne e, yàlla def na ko ci ndax mbooloo mi ñëw na te itam ni ko suñu Abdourahmane waxe sànq àdduna bépp fune ne e, bis ba dem na fa ba ñu bari ñu ngi koy rafetlu kon am naa yaakaar ne ñu bari danañ ànd ak yéen liggéey bi te loolu rek moo doon jublu gi su ko defee nag eh, lii di ay jumtukaay yoo xam ne ay bokki taalibe ñoo dégg woote bi barkeeloo ko dañoo mënul ludut delluwaat ko ci yéen yéen ñi nga xam ne yéenay liggéeyal daara yi subaak ngoon guddeeg bëccëg te du ngeen ci sonal kenn ci dara seen ñaq bopp ci ngeen di génnee eh, def ko ci kon lu fi ñëw nu ma toll ci yéen rek lañ koy mën a delloowaat ne du dara ak boo ko boo ko misaalee ak li ngeen di li ngeen di sonn waaye xam nañ ne lii taxu leen woon a jóg kenn ku nekk ci yéen am na ci yéen ñu bari ñoo xam ne la ñu paas ba si fii rek mën na ne mën naa daanaka mën naa ëpp lii kon day loo xam ne mu mënu si ko def nenn nu du delloowaat leen ko waaye waaye du loo xamante ne bii yéen ñi ñëpp ngi bàyyi woon ngeen ko xel li ngeen bàyyi xel rek mooy liggéey bi nga xam ne yéen koy liggéey te jamono ngeen nekk ca kon loolu moo doon liggéeyu tay bi euh, jumtukaay yi nga xam ne di ay bool ak ay jumtukaay yu fóot ay madaar saabu ak ay yére yi nga xam ne bokk taalibe yi joxe nañ ko fi ngir ñu jox ko dongo yi ci yéen soxna yi lañ ko mën a jaare ndax sëriñ daara yi takkaguñ leen ñoom ñëpp ba mën a xam euh, euh, sëriñ daara yëpp waaye yéen ñi moom takk ngeen leen kenn ku nekk ci yéen xam na daara ya nga xam ne moom lay jëflanteel kon luñ ko jox moom mooy xool daara yi mu jëflanteel mu dem jëflante ci ak ak ñoom loolu moo tax woowuñu fi sëriñ daara yi ñu bari ngir ñu ñëw xanaa ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ànd ak yéen ci liggéey bi ngir ñëw gunge leen seede seenub liggéey kon lii benn pàcc la ci li ngeen liggéey waaye la ëpp ci li ngeen liggéey xam ngeen ne am ngeen ay parase yu mag yoo xam ne yéen a ngi ci te mooy fóot mi ngeen di fóot muy lu metti waaye metti daanaka yëgu leen ko ndax li ngeen ci séentu ëllëg waaye teewul rek euh, bu yéen boo yéen wut war a xam lu dis loolu moo tax ñu am pas-pasub euh, li ngeen fi doon jaayante ci social bi ak ya ko jiitu woon yëpp ñu fas yéene leen ko defal ci ay machine fóot ak ay jumtukaay yu mu war a àndal ngir fóot mi gën a woyof ci yéen kon loola moom dara jógu ca ma nga fa incha allah euh, fekk si la fi nekkoon daañu ko boole lépp ci fas yéene ko def ci machine yooyu ak jumtukaay ya muy àndal ndax. Euh, dana soxlawoo ay barab yoo xamante ni bii dañ koy defar ba mu mel na war a mel ay pàkk wala ay place defar ko ba mu taaru xëcc fa ndox def fa courant waaye def fa ay fonds yoo xam ne ci leen wax fóot mi dem yooyu yëpp nag euh, xaalis a koy def moo tax kon xaalis bi ngeen fi jotoon a indi mu toll ci 2 millions te yéen ñi yéen ko jaayante ak seen i bokk yi nga xam ne ànd nañ ko yen yéen loolee fekk si ne 2 millions ya fi njëkkoon nekk incha allah lépp dana dem ci liggéey booba. kon lii jënduñ ci dara ci li ngeen fi andi woon li fi bokk taalibe yi andi rek moom lañ fab nii dolliwaat leen ko ndax itam mënuñu ko jox kenn bàyyi kenn ne dañuy dañuy seet ñan rek ñu jox leen ko ndax mu amal leen njariñ waaye xam nañ ne lii am na ñoo xam ne li ma ko waxee sànq fa ñu jógee ak wata yu ñu jël ba ñëw ba agsi lañ cay fay mën naa jënd lii waaye nag kon ñëw gi teew rek euh, seere ko dafa nekk lu am am solo kon nag euh, loolu moo doon liggéey bi incha allahu taala ñi nga xam ne Euh, ñoo lañ mujjoon a samp euh, lu jëm ci wàllug bool yi ñoom lañ ci jiital nga xam ne jotugoo jotuguñu woon a am yi bool ñoom lañ jiital ci bool yi la ca des ñu soog ñu dollee ñi nga xam ne amoon nañ bu dee yeneen jumtukaay yi des nag ñëpp kenn ku ne ci barkeeloo loo xam ne bi da ko yóbbu ca daara ja yóbbu ko ca ginnaaw da ngeen di fóot moom am na ci loo xam ne li ngeen li ngeen li ngeen xam ne moom da ngeen koy ci wàllug fóot loolu moom daanaka da ngeen ko war a mën a téye la ca daara ja mën a barkeeloo ci moom barkeeloo ko ci ndax itam ñaare bi ngeen ko joxee itam da ngeen koy wutiwaat rek waaye loolu daal moom mi ngi aju ci yéen ak yéen ak sëriñ daara yéen ko seqal waaye da nga xam ne moom seen alal la yéen ko moom seen bopp kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di ñaan yàlla eh, bi ñaan yàlla ñu ko teewaat at yu bëree bëri te at mu ñëw dàq mi nga xam ne moo moo weesu te am nañ ci yaakaar bu baax ndax xam nañ seen pasteef bu baax a baax kon ñu ngi gërëm mbooleem ko xamante ne bii rek eh, def nga ci sa loxo waaye nag di beral ngërëm nag sëriñ Abdou Samad Mbacké mu Cheikh Souhaïbou ndax moom Euh, dégg na woote bi teel na ko dégg bu baax a baax a baax ba mu xamee sunu seenu jublu rek ak seen bëgg ak seen pasteef la joxe ñaari pàkk waaye joxe machine fóot yi boole ci nee dana joxe machine fóot dana joxe ñaari pàkk euh, gannaaw bi def nañ délégation dem fa ngir njukkal ko ba mu boole ñoog ay jëwriñ ya nekk foofee ca euh, Madiana siis ña fay ay sëñ daara ak ay soxnay boppam. boole ñoog ñoom ñay soxna ya jiite maanaan jiite kuréel ga foofa ñay góor ña jiite kuréel ga foofa ba incha allahu taala balaa yàgg daañu fa dem samp kuréel gi kon moom daal dinay bokk ndax moom fa saas laal di wax ne moom day daal di bokk bokkal waa njabootam ak ak i dëkkandoom ñëpp kon kooka nangu na liggéey bi def na ci dooleem waaye it bokk na ci liggéey bi noonu lañ ko fas yéene yaatale ba ci dëkk bépp itam mboolem fu fa nekk fas yéene nañ faa dem gaaral liggéey bi incha allahu taala kon ñu ngi leen di gërëm leen sant bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil di sant sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg ca wér ak mboolem baayu daara yi ak ndeyu daara yi sant sëñ Xaali Jaxate ak sëñ Abdoulaat mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ sunu sëriñ ñu ngi leen sant bu baax di leen dool leen njukkal di leen sant nag ndax lu ci noonu cant gi ñoo ko moom ndax ku la womat ci lu baax rek yow jar ngaa sant ndax alxuraan moom mooy mooy lépp kon ku la ñëwoon déggee la alxuraan rek war ngaa sant yàlla bu baax di sant soxna Asburi Mbàkke sunu jëwriñ sunu sëriñ ak mboolem day daara yi ak sëriñ daara yi ak soppee daara yi ak ndonge daara yi ndax wax dëgg yàlla ah sëñ xaale ak sëñ laat ak sama sang bu baax bi loo sëñ Abdourahman Lo mi ñu koo fay ak sëñ sëñ Abdourahman maanaam sëñ Abdourahman bu ci des mu ngi leen sant bu baax di leen doole njukkal bu baax di soññu nag jigéen ñi bu baax a baax mboolem koo xam ne yaa ngi bokk ci liggéey bi doon liggéeyal sëñ Touba di liggéeyal daara ñoo ngi lay gën a soñ soññ gën a takku gën a góorgóorlu bu baax a baax gën a soññ ya nga dëkkal ndax wax dëgg yàlla kat. soññe la nu ñoo war a yor soññe bi ñuy war a góor góorgóorlu ndax nun ñooy ndey daara ndax nun la ñëpp war nun la togg war nun la fóot war nun la bale daara war kon nag nun ñoo war a góor góor bu baax a baax mboolem koo xam ne bokku ci woon na nga ñëw a bokk ci liggéey bii di liggéeyu alxuraan ku ci bokk ku ci bokkane tam nga gën a laxas waaye takk bu baax a baax ñu liggéeyal alxuraan ndax alxuraan rek fi nekk kon nañu gën a liggéey alxuraan bu baax a baax wax ji nag moom dama mënut a bàyyi ndax sama xawut a kii kon na maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dina woo ci liggéey bi ñuy liggéeyal sañ yàlla liggéey ko dëkk Touba bii yàlla nañ dund ba am ay hôpital am ay ay liggéey ñun lii kat daara yee ko liggéey ak bàyyi daara yi ndee waa Njaareem man ba tabax ay ay nan man nañu wun waa Touba war nañoo mën lu ko ëpp ndax yaakaar naan fii la ëppee kon nañ góorgóorlu ci liggéey bu baax ba lépp loo xam ne lu baax la rek ñu ndey daara yi ak bàyyi daara ak sëñ daara ñoo ko def ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm yéen ñu boole ci liggéey Sëriñ Touba liggéey Alxuraan ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf waaw barakaatu maa ngi nuyu suñu kilifa yi fi nekk yëpp di nuyu soxna yi di jiital ci nuyoo bi mu Mountakha suñu sëriñ saa borom yàggal ko fi te may ko wér te tooy yen bi di jéggul nag si kàddu yi ndax eh, kàddu yi moom xam naa ne kàddu yi sant rek lay doon ak ñaan ak soññee ñu Ahlu Xidma moom dañuy sant rek tey ñaan dafa séenee nag jaajuwaat ndax lii dañ ñoo dañ ñoo soññ rek defaguñ dara de ndax ku xool ci nga xam ne moom weerami moom lañ nekk nii muy soxna jaara ñun kooku yaakaar naa ne bisam bi war nañoo tànneef nga xam ne ñun jigéen ñi war nañoo doon ay royukaay kenn ku ne fa nga nekk war ngaa jàpp ne yow defagoo dara boo jëlee ci benn jukkab soxna jaar rek di ko jëfandikoo yaakaar naa ne alxuraan ndax dégg naa ñu ne soxna astawaalo yaakaar naa ne bu fekkonte ne bâtiment fondement ba mooy soxna Asta Waalo waajuram kon nag ñun yaakaar naa ne am na royukaay ndax neen bâtiment boo ko gasee ba mu xóot xam nga fondement bi da nga koy suul neen soxna Asta Waalo mooy fondement bi soxna jaara ak seexul xaddim ñooy ñooy taxame ba nga mën koo gis rafetaayam kon nag ñun loolu rek doy na ci ñun pas-pas ak gëm-gëm ñu gën a yokk sun sun sun fuñ tegoon suñ tànk daal muy benn ñu fas kaa yéene yokk muy fukk jàppale ci daara yi nekk ci fóon mi jaamu yàlla sax ci ndigal déggal suñu ndigali borom kër ndax yaakaar naa ñun loolu mooy ëpp solo ci ñun. defe naa ne nag loolu buñ ci jubloo dinañ ko dinañ ko man ndax ñun yaakaar naa ne jigéen moom ñëpp dégg na eh, li nga xam ne moom la ci lislaam wax kon nag ñun war nañoo gën a góorgóor ñun cër bi ñu am dafa rëy ñu xam ko nag muy cër bu riis ñu war kaa xam nag bañ a fawee suñu bopp te xam ne lii ñu nekk lii ñu nekk kenn amul lu ko ëpp doole muy alxuraan ndax seel xadim dafa bëggoon a nekk si dëkkam bi di jàngale suñu borom mayu ko mu nekk fi kon nag yaakaar ku nekk ci ki koy jàngale ak ki fiy ak ki koy jàppal ki jàng yaakaar naa ne yaa ngi ca yoon wa kon nag li may man tooññe bi sama bopp laa koy jiital ñu gën a góor góorgóorlu gën a jàppale daara yi gën a am pas-pas gën a gëm te bañ a gees ndax jamono ji boo geestoo rek doo dem bul xool kenn xoolal li nga nekk rek muy lu baax nga fas yéene saa boo yeewoo rek sëpp say tànk julli ñaan saa borom musal la ci saytaane akum ndog nga fas yéene yenn ci yoonu Sëriñ Tuubaa ba keroog ngay tëddaa rek te boo xëyee boo yeewoo boo yeewoo rek nga fas yéene gëmaat loola ndax suñ borom kat loolu la ñu fi indee kon nag nan nekk ci jaamu yàlla sax ci ndigal jëfe suñ ndigal borom kër te fas yéene nag nekk ci alxuraan rek ba keroog ñu fiy jóge jërëjëf bokki jullit yi noonu bokki taalibe yi gannaaw ban sant yàlla julli ci yonent sant Sëriñ Tuubaa maam Cheikh Ibrahima Fall di sant sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal lool mu yàgg fi wér di jël sun nuyoog sun siyaar di ko jox sëñ Xaali Jaxate waaye di ko teg ci loxol sëñ laa Baye Laat Jaxate mii di nuyu suñ sëriñ sëñ Moustapha Jaxate di nuyu mboolem baayi daara mboolem nijaayi daara mboolem dayi daara di xam ne lii de ngëneel la ndax yoon bii teete bi ngeen nu teete ndax noo ca ndawtal ya noo ca teg ya noo nga ca sànni ya tey yàlla def ngeen xiir nu ci lii ba tey boo naroon a tegi mbaa nga nar a ndawtal tey bisu daara bi ñëw yaakaar naa bisu alxuraan kenn du ko yemaleeku teg kenn du ko yemaleek ay ndawtal kon nu gën a dàggi sama moroomi soxna yi rek dale ko suñu bopp ndax bis beekat bëkk dim ban taxawee képp ko ci bokkul ñeenganu képp koo xam ne gis nga nu fa ñee nga nu yaakaar naa ne buñ ca demaatee ba taxawaat ca dana bari dana gën a yaatu ndax ñeetaane bi bari na man de ba ma fa jógee ñu bari nee nañ bind ma te loolee buñ ko deful woon gisuñu ko xëy na lee dañuy nekk ca lañ neex comme ni ko soxna si waxee dañ ci dellu gën a sax ci jaamu yàlla gën a taaral alxuraan gën a jàppoo ci sunuy sëriñ gën a dégg di wiya ndigal di bàyyi tere ndax dëggu xaadim rasul bii nu nekk ndigal ak wi ay tere moo fi war ak jaamu yàlla ba mel ne dootu fi jóg rawatina noonu soxna si ndax ku ne la nga liggéey rek ak la nga ji moom ngay góob kon nanu lu ba sunu njaboot gi ëllëg def njaboot gu lislaame njaboot gu barkeel ñoo ngi nuyoo di sant ñëpp nag di sant baylaat di sant soxna yi di nuyu ndeyu daara yëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaax ñu gën a góorgóorlu ba nga xam ne daal ca kaw ca kanam bu naga ni déwénee bu doon ñaari millions yooyee yàlla na nu yàlla jox fukki million ba liñ bëgg sunu borom jox na ko jërë ngeen jëf.